Walf Quotidien ne ko du ñoom dong ndax Bassirou bi ne kon Pastef duut na nguur gi paajal leen romb laas ne waaye DGE seppi na ba mu yónnee ngir ñu wutal ko fiche de parrainage dan ko ko lànk jox Le Quotidien ne kon Sonko amut fiche yor yor bi ne waaye Sonko jinax la daa bari pax ndax samp na Biram Souleye El Malick Ndiaye Abbas Fall Bassirou Diomaye Faye ak Guy Marius Sagna loola yéenekaay bi gis ne ab kurpeñ la bu Sonko dank rek dóor Macky Sall bés bi ne Sonko mooma ab trio la def safar samp Guy Jomaay ak ci élection mag la nekk maanaam yéegaat ca kaw gannaaw ba nguur gi jàppee ni daan na ko ba nuppi lànk gi nu lànk jox Ousmane Sonko fiche de parrainage nag duñ ko bàyyi mu sedd ndax Ayib Daffé ma Sonko yabaloon gannaaw ba mu ñaawloo lim tuddee apartheid électoral ci Vox Populi nee na altine bii nu dëkkmal daanu ko dabu ab recours lan fas yéene dugal Déthié Fall it ñaawlu taxawaay bi nguur gi am taxawaay bi Sonko am nag te mooy samp Jomaay Biram Souleye Guy Marius Abbas Fall ak El Malick Ndiaye Vox Populi nee na dafay dëggal Diallo Diop mi ne woon plan B dana am ca Pastef te moo ne ba mu ko waxee yéene baa ngay fàttali nanu dalee woon ca kawam ñoom waa Pastef ne seen plan A ba Z mooy Ousmane Sonko Sonko mooma yor yor bi nee na seppi gi nu ko seppi ci liste électorale yi tappale gënu koo mag te DGE lan ko jox Ousmane Sonko fiche de parrainage mu ne loola dëppoowul ak code électoral Jibril Ñëng bu GRADEC expert électoral it feelu ko ne bu dee DGE nii la doxaleek Ousmane Sonko teguwul ci yoon teguwul ci démocratie te itam xaajeeg seen dong la gu teguwut fenn les échos teg ndorteelu parrainage bi diggante njàqare ak mbégte ci candidat yi nañu bu dee am na ñu jox seeni fiche te sagar xeeñut am na ñeneen ñoo xam ni dara leeragut ci seeni gët waral la yéene kaay di ñaawlu candidat ci élection bi nu jëm tànnal boppam ñëm bëgg ñu bokk ca waral ci enquête f di yëgal ne dana ko kalaame ji ca cour de justice bu CEDEAO yéenekaay bi gis ne nag ndëgg sërëx gu mujj lataa ñuy egg ci élection présidentielle bu mooy parrainage bi yéenekaay bi ne doonte sax mel nañ ni lu ko yombal waaye jafe-jafe yi tey la gën a bari ci candidat yi waa PDS mel ni ñu naan ñun dawuñu lu jafe ndax parrainage citoyen bi lañu tànn doonte mënoon nanoo tànn seen candidat Karim Wade ndax kóoluteem ci militant yi amul sikki sàkk Amadou Ba it boobale parrainage la tànn muy parrainage citoyen laas nañu kay doxal liggéey ba mooy Ablaye Diagne bu maire l'observateur nañu Macky Sall ci boppam moo tànn Abdoulaye jaañ bu maire muy délégué national bu parrainage bi mu noo yeggee listub délégué régionaux parrainage ngir Benno Bokk Yaakaar ñenn ci kilifay Benno Bokk Yaakaar yu ndakaaru amadu Ba daje nag ñoom xaaji guddi buñ sukkandikoo ci l'observateur mi ñu yëgal ni tam Macky Sall dana daje tey ak secrétariat exécutif national APR bu ca noppee sikk waxtaan ak conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar l'observateur gisee ca ne Macky Sall ma ngay waajal xeexub 2024 bi l'indépendant mel ni ku naan xeex bu nar a xumb ndax téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn candidat wàññi nañu leen démb ca direction général des élections kenn ca wele candidat Serigne Mboup sikk na waxtaan ak bés bi la jour fësal ci lim nar a sukkandiku ba indi coppite ci réew mi rawatina ci daara yi secteur privé bi ak yorin wu sell di bonne gouvernance Serigne Mboup xamle na itam lu bari ci njàng mi mu def ca Sorbonne lataa muy dellusi ci digganteem ak Sonko ak Amadou Ba diggante Abdoulaye Doura Balde ak Lat Diop daa mel ni léegi tey sagar xeeñ ca ndax la tribune nee na ki ñu fal bees ci bopp Lonas ma ngay luñutu Lat Diop mam fa wuutu lam fa def Les Échos di ñu xamal ne audit booba Doura Balde a def mi ngi ko tënk ci contrat d'exploitation contrat de partenariat ak yeneen convention yu fa Lat Diop bàyyi laas ne Doura ci rëbb Lat Diop la ne lii quotidien di ñu xamal ca booba jamono ne Mountaga autobus ban taaloon ca yaraax te ñaari nit ñàkkoon ca seen bakkan ne ñu ñeenti nit jàpp nan leen ca nettalinu nan leen jàppee xamal ñu ñooy ñan ak nanu defee woon ñaawteef googale démb la nu leen defeere ci àjjuma ji juróom-ñetti tuuma yu diis gann lobs nee na moom la nu ngàdd ci seenug loos waaye demagunu kaso ndax ñi ngi ci retour de parquet waaye yéenekaay bi ne bu nu maywul yëf yi dana gën mitti ndax joxoñ nañ leen ci yeneen ñetti cong yuñ defee cocktail molotov kàddu yu doy waar muy firndeel ne ñoom ñoo def ñaawteef gi l'observateur mi ngi nu koy yeggee yemook la tribune duñu xamal ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti migrant yu bawoo Sénégal yegg nañu Espagne ñaari gaal lan waroon yéenekaay kaay bi xayma itam ñeenti junni nit yu yegg ca Espagne googa ci weeru septembre gi réew mi quotidien itam yeggeenu boobale xibaar lataa munoo xibaar ne barigoog pétrole bu njëkk ñu ngi koy xaar ci atum 2024 ci Sénégal Sénégal googa nag ubbiteeg l'école bi mu jëm la tribune njàqare la ca gis fu mel ni Sigicoor ndax école yu bari yanu yàkkoon ak ki jàngalekat yu ne dafa manqué mbiram Sigicoor mooma it le quotidien xëy ci ne lu jara jàngat la cas la ko yéene yu ma jambal jaañ bi tuddee entrepreneur bu tudd Abdoulaye Loum libération ne teg nanu ko loxo ndax daa waroon defar ay cantine ngir wan xbet contrat wu juróom benn téeméeri million moo doxoon seen diggante waaye koppar yooya yéenekaay bi ne danu ko ne doñeet sàcc entrepreneur ba nag ban ko tegee loxo libération nee na dafa xamle ni ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti million ya directeur bu wan xbet ci boppam la ko jox stade booba jamono dinu jox turu gayndey Sénégal yi jongante tey jongante wu rëy ca Europe mori bokk na ca Pape Matar Boulaye ak Ilimane stade ne dugal na bitam bu njëkk démb ak Al Hilal mam tegaat ca bopp jongante ba ca Saudi Pro League sunu làmb dikk ci jongante bi war a dox dimanche ji diggante Gora Sock ak Mama Lamine yéenekaay bi ne bés bu nar a tàng la weneen jongante wu tàng wu nuy xaar di war a dox diggante Eumeu ak Tapha Tine yéenekaay laaj ban njeexital la wuute gi ci wàllu doole nar am fii ak ñooy am tontu li nekk leen ci jàmm ba altine incha allah. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de